mbokk yi nuyu naa leen monsieur le ministre de la communication maa ngi lay nuyu dama benn naxar bu rëy rëy mooy ba tey ci suba liggéeykatu poste jotuñu woon seen payoor xëy na nag diggante tey suba ak léegi xëy na mu demee neneen ba tey ci suba liggéeykatu post kenn fayu leen bu dee méttiwu leen ma fàttali leen ne tey le ñaar fukki fan ci weeru novembre je parle du salaire de octobre mu naan ma xaw ma ay weer bi deewagul payooru octobre laay wax nous sommes le novembre les postiers ne sont pas payés les Sénégalais ne payent pas leurs taxes et leurs impôts pour payer vos costumes et vos cravates pour que vous mainteniez les travailleurs dans une situation où jusqu'au 20 ils ne sont pas payés monsieur le ministre amul benn salaire u député buy tardé benn lan moo tax ñun ñii askan wi di ñu fay pour ñu défendre askan wi askan wi di toog moom mii di liggéey ci poste ba le 20 kenn fayu ko amul benn salaire ministre buy tardé musuma dégg payoru ministre buy tardé monsieur le ministre des finances musuma ko dégg musuma dégg payooru député bu tardé au nom de quoi les salaires des travailleurs de la poste sont en retard c'est inacceptable loolu du dëgg du yoon ay père mère soutien de famille ba tey le vingt pire poste liggéeykat yi dañ doon am appui tabaski Noël gàmmu màggal Pâques rentrée scolaire jeex na amatuñ ko ba tey jotuñu seen payoor mais xam nga lan moo gën a métti mooy monsieur le ministre bi ñu fi tàggoo daaw ak tey weer bu nekk personne du troisième âge bi surtout di ma woo naan ma suñu xaalis mu ngi poste mënuñu ko jot muy ñaari métit liggéeykat yi di am ay retard de salaire structurel ñi am seen xaalis poste duñ ko jot c'est inacceptable Il faut payer, d'autant plus que les ministres et les députés, Sen Payot, d'où tarder. Monsieur euh, le ministre, gisuñu bu baax poste ci budget bi def nga réajustement rémunération du service public à hauteur de 12 milliards il faut s'en féliciter monsieur le ministre maintenant il faut dire quand est-ce que les décaissements vont être faits Et il faut demander au gouvernement que les décaissements ne soient pas des petits décaissements qui ne serviront à rien. Monsieur le ministre, il faut régler la problématique des retards de salaire. Quelles sont les mesures que vous prendrez pour que les travailleurs ne connaissent plus de retard de salaire Monsieur le ministre, ci recommandation comité interministériel de restructuration de la poste benn rek nga ci def mooy bi li ci de yëpp defoo ko est-ce que la poste est une priorité pour votre gouvernement est-ce que la poste est une priorité pour le président Macky Sall gisuma ko man en tout cas ci budget yi li ci des naa la ko yónnee par écrit comme ni ko monsieur le ministre de ko waxee mbokk yi Bassirou Diomaye Faye la tudd numéro fiche am mooy 111 moom la ñuy parrainé Ousmane Sonko cinquième président on poursuit la lutte judiciaire parrainé Ousmane Sonko